السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكو انترنت ينسيفر في سان تلفزيون جوكو تي تيفي نجلين نيو ببارتي لنزيار تيناك نيو تيوفي تي دنيير جور فستيفال دار إسلاميك في تي ليس مدرن دار فيسك منيك دنيير جور بينا خمان تنين مو موتون جور فستيفال دار إسلاميك تي ميم جور بينك mu nekk finaalu concours chant yi nga xamante ne jotoon na fee am ba tey ñuy wéyal festival d'art islamique fii ci lycée Rufisque léegi nag ñu ngi jàkkaarloo candidat numéro bi la ti la. 6 6 numéro 6 tur bi. Mariama Diallo. Mariama Diallo macha allah Mariama Diallo ñu la doon laaj lan moo la motivé ba nga bokk ci concours bu mag bi le maa bëggoon maanaam bëgg moo tax ma bokk ci. maa ah, bëgg wéy. waaw ah. bëggoon a xam tamit fi ma toll. tester sa bopp daal. a xam tamit fu ma toll daal. fu nga mënee lan moo mënee bëgg nga gën liggéey voilà waaw macha allah am na solo léegi nag euh, préparation yi nan ngeen ko waajalee woon ak waajal concours nu mu méttiwee léegi yow nan ngeen ko waajalee. ah dañ ko waajal ak yàlla rek ànd ak ngëm-ngëm ak lépp looy def boo ci àndut ak ngëm-ngëm moom zéro la dañ cee ànd ak borom bi allah subhanahu wa ta'ala waa ak répétition yi. doon dañu xam ne lu génn rek. xam ne loolu la yàlla dogal koy sante borom bi bu baax a baax ndax lii mun naa ne lu simple la daal maanaam ku nekk da ngay tester sa bopp daal xam fan nga toll fan nga toll daal loolu la rek mais résultat bu munti génn dañuy sant borom bi. allah instant yi daal mais a xaar résultat ni mu méttee ndax stressé nga daal wala genre xam nga rek ñëpp xam nañ ko résultat ni mu méttee surtout concours léegi yow lan nga yëg fi mu toll nii. comme ma wax léegi rek. man damay toog ànd ak ah, lu xew rek ñu xam ne ne yàlla la daal. waaw ba tey nag ñu ngi ci biir festival d'art islamique ba tey ñu ngi xaar résultat yooyu la di concours way yi léegi nag ñu ngi jàkkaarloo candidat numéro bi lan la. numéro 3. tur bi. Oulimata Cissé. Oulimata Cissé Oulimata Cissé bëggoon nañ xam lan moo la motivé ba nga bokk ci concours festival d'art islamique. bon dafa nekk loo xam ne genre dama ko bëgg rek. en plus di jéem a tester sama bopp fan laa faible ak fan laa amee doole di affaire tout ça. léegi kese la mais instant bi tak ak xaar résultat ni mu méttee ñëpp xam nañ ne concours dafa métti ak stress yak yooyu noonu instant yi nan nga dundee moment bii nii. bon moment bi moom de toute façon ñun ñu ngi xaar rek li fi lu mënti am rek ñu xam ne yàllaa ko dogal ci en plus ñu xam ne que ak képp ku ko mënti jël génnul ci culture Israël bi culture bi rek. culture mo moo am ndam. voilà ah, macha allah wax ji rafet trop ñu ngi lay jaajëfal bu baax. bi ñu jàkkaarloo sañse nga de macha allah. bi nan la. Fall. ban numéro. 11. numéro 11 Soda Fall Soda Fall da nga bëggoon xam lan moo la motiver ba nga bokk ci concours bi le waaw dama gis euh, nit ñi ci concours euh, art islamique bi ñu organiser ko ñëpp bokk ci concours bi ku nekk di wane sa talent di wane sa bopp pourquoi pas ñun tamit ñu wane suñu talent nañ ah waaw macha allah gis nañ ne yow daaw yaa ngi woon ci biir concours bi macha allah te avancé woon nga ci ren tamit nga jëlaat sa euh, participer si yaakaar naa ne ren sax da ngaa dem ba final te daaw yaakaar naa ne demi final nga toogee léegi yow lan moo la motiver ba ren nga bokkaat. waa di gis ko affaire bi kii ma rek man il faut ñu gën a dem rek dañ si dem ba jeex daal. Hmm. gën a yokk répétition yi maanaam daal daaw danga nga doon defaruwaat daal. waaw moo tax ren nga yegg final. ah macha allah am na solo léegi nag bëggoon nañ xam waajtaay yi nan ngeen waajee concours yëpp xam nañ ne waajtaay concours nu méttee répétition yi et tout nu ngeen ko waajalee. jël suñu yitte yëpp yitte yëpp nag def ko ci ci ci répétition yi. di répété di def lépp lu ñu war bàyyi suñu yitte yëpp nekk ci rek mm-hmm. concentré wu ci. ah macha allah am na solo léegi ñëpp xam nañ ne xaar résultat ni mu méttee ñëpp gisuñu lu dul gis xam kan moo jël raw gàddu gi léegi yéen ak stress boobu genre yooyu noonu daal ndax instant yi stressé wu ngeen wala loo leen di sentir daal ak ndax yaakaar nga ne di nga ko gagné ou pas. incha allah si yàlla àndee stress bi moom mënu see ñàkk. waaw concours lañ wax wax stress moom mënu see ñàkk sant yàlla rek. Ah. ah macha allah candidate euh, numéro numéro ñaata la. numéro 2. numéro 2 tur bi. Salimata Diouf. Salimata Diouf Salimata Diouf ya ngi jóge fan. Ma ngi jogé ba Sébikotane. ban troupe nga bok? Ma ngi bok si troupe bi ñuy woowee Nasiha. ah macha allah am solo Légui dañ la doon laaj lan mo la motivé ba nga bok ci concours bi. ah juste pour bëgg woné sama talent. après ça lépp jàngat la ndaxte bo bokkee si concours bi dinañ la corriger nga xam say fay ak say o ak say ba. donc loolu moma gëna gën a motivé ma si culture daal xoolaat xoolaat sa jëfin daal ba xam ndax ni ngay wéyee noon la wala tuut yooyu noonu daal a baax na macha allah am na solo léegi préparation yi nan ngeen ko dundee waajtaayu concours ku nekk xam na métit bi yow maanaam nan nga ko waajalee daal. ah xanaa ñu xanaa jàpp si répétition yi rek parce que en fonction de concours bi dañuy xool sa baat yan woy la méngool ak yan woy nga mën a nga mën a génnee sa valeur donc en fonction de ça dañu daan def ay répétition ba ba ba ñu wane lii tey ci prestation yi. ah macha allah am na solo léegi nëpp ñëpp xam nañ ne concours bi jeex na déjà instant yi ñëpp yàqamti nañ résultat yi génn xam nga rek instant yi ko gis yàqamtiwul lu résultat yi génn léegi yow maanaam ak xaar résultat nu méttee stress bi yow nan nga ko dundee daal ndax stressé wu nga wala genre ak foo gis sa bopp ndax yaakaar nga ne dina ñëw. ah wa insha allah yaakaar naa dina ñëw té bon fim mu toll nii mën naa stressé wu xana avant ma way j'étais stressé mais instant bi mom sante yalla dal donc comme ni ñi wax rek ragal moom yëpp candidat numéro 8 numéro 8 tour bi Mohamed Ange Mohamed Ange Mohamed Ange da nga bëggoon xam lan mo la motiver ba nga bok ah. ci concours bi ni ah dama dugal ci concours mom dañu xam né ñun am nañ talent rek teg ci mën nañ ko tamit wala sa bopp wóor sa bopp pare bëgg bëggoon testé waal suñu bopp tax na ma dugg si concours loolu ma si dugal. Ah, macha allah am na solo en tant que festival d'art islamique léegi tamit gis nañ ne eh, dem nga euh, final si ñaari kii yëpp muy concours euh, alquran bi ak kii bi. Euh, woy bi yow léegi ba nga demee final ak ñaar yëpp ni mu diisee ku xam concours xam ni mu ak stress bi ma xam ndax yow tiit nga wala tamit yow noo gisee sa bopp daal instant boobu ak préparation yi noo ko noo ko noo ko préparé wee ah di ngaa mence rek di ngaa mence rek man alxuraan bi mën naa ne mën naa ko loolu laa wax ba pare mën naa ne mën naa ko mais man xaw ma ne woon nag alxuraan dafay am way ya, bi laa yaakaaroon ah, mo dem dugg ci way bi bañ tooyee ba ngon nak ma deg ma jegn ne amna manam na ma dugg ci mo ma ma bokk si concours wala nga sa bop de ah. wa legi instant yi jallale ngeen sen final ba pare ba mu dess resultat yi instant bi nan ngay dundé moment bi ak xaar resultat ni mu méttee lan ngay sentir ndax yaakaar nga ne ding ko gagné ou pas ah instant bi mom wa deug fa yalla li nga li nga mu no ko rattraper xamoo loo yàq tamit. saa yi moom toog di xaar jéeg yàlla dem toog sama booy ambiance jéem a fàtte tuuti. balaa mois bi di ñëw yàlla def noonu la yàlla def noonu la. Ah, macha allah kontaan bu baax a baax. toll na la tey mbir dafa seere woon. tey mbir dafa seere woon. daam. ñoo xamante ne ci biir way bi ci biir daa am ñett ñoo xam ne dañoo bokk li ñu way ton yi ñu way daa méngoo amul bu ci yéeg ton yëpp ñi la def léeg-léeg dañuy yéeg mais bu ñu yéegee dañuy wàccaat dañuy teel a wàccaat kenn defu ci erreur kenn ku nekk jël wayam wéy ko ci temps ba mënoo see génnee erreur mu nekk lu difficile pour partager leen am kenn koo xam ne comme comme uli li mu way di way woo xamante ne ñun ñii toog fii pour ñu àtte ko day jafe ndax ñun bokkul ci ñun ni ñuy waye mm-hmm. loolu moo tax ñun pour ñu àtte ko tey boo ko joxoon bu jël pay daa ñëw ci aar bi way way bu dul woy aar bi gañe gañe waa aar bi loolu jëmmalul ñi nga xamante ne dañuy way ci aar bi mm-hmm. soo nee jëlul pay ñàkk maanu la ndax li mu way yéeg na yéeg boo xamante ne mënoo kaa comprendre sooda daa ñëw indi créativité indi lu bees indi estilam ñett ñii Mouhamad Ange Sali ak Mariam ñun siit yi dañoo toog kenn ku nekk ki nga jox ne moo jël pay ak ki sa morom jox bokku léegi ñu ne nag lii suñ ko joxee tey dinañ joxe résultat yi ci ñàkk maandu te mën nañ ko joxe te fekk mbir mi warul demee noonu ndax dafa kuñ ci bett léegi nag li ñu décidé ñun jury yi mooy final dañ koy jàppaat def ko concert islamique léegi nag pour genn ku nekk ci ñoom pour genn ku nekk ci ñoom ñoo ngi koy jàpp premier weekend ci mois de novembre mën a gën a préparer waat premier weekend ci novembre la ñuy defaat final bi concert fii ci lycée moderne